mbokk yi yéen ñi bay xel la chaîne leader la TMP Events TV seen émission bu mag bi di Yobul bis bi fa am gan gu maga maga mag ñukoy wax Serigne malik gey waye soko waxe yépp dem ci Touba di clinique tradi moderne bu mag di faji yi yi nga xamanteni ni da fay faral di sonal doomu aadama bokku na ci diabète hémorroïde ndoxum siti ba ci faiblesse sexuelle kon mbokk yi daw si len gaaw képp ko xamanteni ni da nga am jaxlé ci yoy feebar ah na nga ñew fi ci kër mbay fa wala ci Serigne malik gey ñu wan lako wala nga wo ci numéro 77 539 19 04 mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen uh, dalal jàmm ci seen leader la TMP Events TV comme ni leen ko waxee am nañu gan gu mag a mag a mag ñu koy wax uh, Serigne Malick Gueye Serigne Malick Gueye nag day uh, fajkat waaye di ñaankat ci wàllum tradi moderne clinique bi di euh, Sajaratu Touba di faj yi feebar bokk na ci diabète ndoxum siti hémorroïde euh, ba ci euh, faiblesse sexuelle yooyu yëpp da koy faj ak yeneen sax yoo xamante ni boo la ñu toppee ci waxtaan bi dinañ ko leeral Serigne Malick Gueye mi ngi dëkk ci Kër Mbay Fall soo ñëwee foofu boo ko laajtee ñu wan na ko wala nga woo ko ci numéro 77 539 19 04 wala nga woo ko ci 77 507 38 63 moom ngeen di am seen kanamu écran def rek lu dul jublu ci waxtaan bi waaye nuyu ko Serigne Malick Gueye ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci sa émission bi yobul bis bi wa alaykum salaam wa rahmatullah di wax alaykum wa rahmatullah mbokk yi nga xamanteni ñi ngi top ci chaîne bi yépp ñi tambalé suñu cadeau ci ni ñi faral di déggé may wax ni Serigne malik gay abdan mamlukan la yaqdiru ala shay'in muy jaamu yàlla boo xamante momul moomul dara ci bopam dafa bayyi lepp ak yalla di yëngu ci ñaar yoy nga wax nak muy fajum ciosan ak ñaan yàlla ñu dëppee ko asraar euh, ñu nekk fii ci kër Mbay Fall euh, kon euh, sëriñ Fàllu dañuy tàmbalee suñuy kàddu rek ci wax alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah ñu delloo la kàddu gi jërëjëf kooku mooy Serigne Malick Gueye Serigne Malick Gueye ñu jublu ci euh, waxtaan bi ndax xam nañ wax dëgg yàlla àdduna yëpp nangu nañ sa xam-xam euh, ci li ngay def di ko faj wax dëgg yàlla ñëpp gis si euh, maanaam yitte ji ko jox ak lépp rek wéer ko ci suñu borom tey ñu war a waxtaanee ñaan sama question bu njëkk dama lay laaj naan la lan mooy ñaan tey bu ma la laaj lan mooy ñaan lan nga may lan nga may tontu. Fallu ñaan moom la ñu wax adduwaaw mooy ñaan suñu borom ne adduwaaw astajib lakum ñaan leen ma ma may leen adduwaaw silaaxul moomin ñaan mooy ngànnaayu jullit ñaan beneen xeetu jaamu yàlla la damay wax ne léeg nga dégg sax nit naan la maa ngi julli maa ngi woor maa ngi def nangam ak nangam ma ne loolu yooyu ay faratala yu yàlla teg sunu kaw ñaan nag beneen xeetu jaamu yàlla la mooy yàlla mooy sa boroom moo la sàkk lépp ci loxoom la nekk moo ko moom moom mu ne la dama bëgg nga ñaan ma may la yow jaam bi nga ne ko man lànk naa duma la ñaan loolu agréé da daal dugg kon ñaan gi nag dafa bari ay fànn nit ki mën na ñaanal boppam moom ci jëmmi boppam moo xam dafa julli ca gannaaw julli ga mu ñaan yàlla soxlaam moo xam dafa naafi la ci gannaaw naafila ga mu ñaan yàlla soxlaam kazalika tamit mën nañ ko ñaanal mën na dem ci ku ragal yàlla am mu am ci moom ak njort ragal yàlla mu ñaan loo ko wala mu gis koo xam ne dafa mage lool ba mu jàpp ne moom kooku nekkatul ci benn caaxaan mu njort ci moom jege yàlla mu ñaan la ko wala mu gis sax gone gu ndaw gu tuuti goo xam ne xalaat ne defagul benn bàkkaar mu ñaan la ko kon ñaan mooy li jaam bi di soxla lépp mënu koo matal ndax olof ne na ku dee da ngay bàyyi ay mébét kon loo fi bëri la bëri la maanaam tey jii koo fi gis rek am na lu mu soxlawoo lu mu amut tey bu dee milliardaire bi am na soxla su ndaw soo jaaxal na ko bu dee ki nga xam ne faqiir la ko man ñàkk tamit am na lu mu soxla lu mu amut kon ñaan mooy jaam bi yàlla daf koo sàkk indi ko ci àdduna mu am ay soxla yu muy am soxla yi nag day tàmbalee ci àdduna jëm alaaxira mu war di ko ñaan yàlla kon loolu mooy baatu ñaan fànn yi ñu koy defee nag dafa bari mooy comme ni ma la waxee da nga ñaanal sa bopp da dem ci nit mu ñaanal la kon Sëñ Fallou bu ñu wax ñaan daal mën nañ ko tënk ci loolu ne loolu mooy ñaan waaw xam nga ki war a ñaanlu mooy ki nga xamante ni dafa am ay yitte waaye ki war a ñaan kooku nag lañu war a lijjanti mooy kan ki war a ñaan bokk na ci ki nga xam ne jiital na ak ragal yàlla ci lépp lu muy def jiital na màndargaam sidq muy dëggu mooy koo xamante ni lam lay wax ak li muy jëf ñooy méngoo waaye ci biir loolu mooy ki nga xamante ni tamit jéem naa nag soobu ngirum xam-xam maanaam xool fànn yi ñaane ndax ñaan dafa am ay charte ndax dafa am ay yu bëree bëri tey bokk na ci kiy ñaan mu ñaan loo xam ne lu ñaanu la masalan tey yonte yàlla nu wax wax nañ ne jun junn bi at manqué na juróom fukk alfan ilaa xamsin xam dund na 950 ans te ginnaawam ba léegi dégg ko ku fi am at yooyu kon ko dégg mu naan yàlla nga sut yéen yàlla nuux aw fan kooku la mu ñaan mustahil la yàlla jombale na loolu boppam kon da ngay ñaan lu ñaanu kon kon charte yi ci la bokk beneen bi mooy kii ñaan war di dundee lu lew kii ñaan dafa war a sàkku kasbul xalaal mooy di sàkk lu leel lu leew masalan tey ki nga bëgg ñaanal yow ba pare laata ngay ñaan ay dóor nga lal ci ñaan gi mooy diw jox ma saraxu nag bu ñuul jox ma saraxu mbaam jox ma saraxu fas calculer ko mu nekk six cent cinquante mille wala huit cent mille francs ci ay sarax nga ko ne ko weexal gi soo ma joxee cinquante mille ma ñaanal la dèjà kooku bu dee borom xel rek dana ñaaw njort parce que nit ki mënoo koo teg saraxu huit cent mille laaj ko weexalu cinquante mille te ñaan moo gën a metti gën sarax léegi nga fas yéenee lekk lu lewut ba pare bëgg koo ñaanal kon foofu charte yi da nga koy teggi beneen bi mooy nga wéetal yàlla ci boo koy ñaan yàlla da nga bëgg nga koy wéetal dem ci bërëb bu laab laab ci sa jëmm laab ci sa yére comme na ngay amee mandarga yi kuy julli rek nga jàkkaarloog yàlla fas yéene koo ñaan kon loolu ci charte yi la bokk ba tey aussi toroxlu ci kanamu sa borom suufee ba wane ne ko ab jaam nga buy ñaan dafa am solo waaye yàlla bëggul tey nga nga koy ñaan nga toog ci chaise bu urus toog di ko ñaan du ay worma nga war a yegg suuf am na ci sax mag ñi waxoon na ci ak der moo ëpp ijaaba ci di ñaan yàlla ndax dafa mel da ngaa delloowaat yàlla àqam waaye yooyu nag ci fànn la ci yenn ci ñuy ñaane waaye kasaalika noonu la nit mën a tamit jël ay alquran barkeelu ci ñaan ci yàlla kon gis nga ki war a ñaan war na mat ci charte yooyu ma lay wax ba noppi soo ko war a nekk ñaankat waaw. Euh, mbokk yi. Mm-hmm. ci euh, jëm njëriñ. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw foofu Serigne Fallou dafa am lu ciy am mooy euh, listixaar dafa nekk porte d'entrée wu ñaan mooy consultation léegi nit ki tawat bu ñëwee ci yow benn mën nga ko laaj am na koo xam day ñëw rek daal lay jukkil feebaram ne lii moo ma dal ba ba tey doyul ndax am na ko xam day ñëw na la man daal saa ay rab ma sonal moom moo la wax boppam avant nga koy listixaaral mais il faut nga confirmer est que waa ji li mu wax ay rab moo ko sonal jàpp na ay rab la léegi mën nga topp nag ci li mu la wax ñaanal ko ci yàlla mais war ngaa mën a delluwaat ci sa xam xalaat ndax ce que kii li ma wax noonu la def confirmation léegi seet nag muy listixaar boobu damay wax toujours dama ci insister wax naa ko waxati ko dégg ay ci tontu waaye man dama ne dafa am loo xam ne moom gëm alxuraan dafa ne wala talbisul xaqa bil baati wa taktumul xaq wa antum taalamun leen jël ay dëgg di ko muuree ay fen waaye bu leen xam ak dëgg ba noppi te waxu leen ko man sax loolu moo dugal ci lii may def nii muy leeral yi te yàlla dafa nekk ku ku ku mat gis nga lépp lu mu wax ci alxuraan seetlu ko bu la teree dara rek wala bok bu la poser question lutax nga def nangam xamal ne tere won na la ko ndax fi dafa ne wala talbisul haqq bil batil waye dafa ñëwaat mu ne lima talbisuna bil haqq lima talbisuna al haqq bil batil wa taktumuuna al haqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen koy def legi tere won na len ko waye ñëwaat na diko laaj lan motax ngeen koy def lima talbisuna al haqq bil batil wa taktumuuna al haqq wa antum ta'lamun kon li li am solo moy nit ki na nekk ci logique gu fas yéene nekk ci dëgg moo tax ku mënul seet ba pare listixaar boobu li ma ci doon bëgg wax sax mooy maanaam am na koo xam ne dafay wax ne mën na tëdd ci genn guddi seetal quarante personnes wala 50 personnes bu xëyee mu jox leen seen résultat mënul nekk sëriñ bi ñun ñëpp ay xel lañ yor nuy waxante lu mën a nekk nelaw dafa gàtt maanaam tey ab sëriñ ay nelawam gën ngaa bëri mënut a paase lu mu bari bëri bu mel ne man nga xam dafa bëgg nelaw mënut a paase juróomi waxtu. ndax ñaare balaa nga tedd rek minuit wala une heure dana jot diggante bobu ngay jullee fajar diggante bu matul 5 heures de temps té mën nga tedd 30 minutes 40 minutes do nelaw nga war nak tambali say nelaw légui wara xam mbiru moodu mo samba mu faatu mu demba kenn ku nek ñu lay mbiram dama né buñ ko téggé ci li ñuy wax listikhar mënul nek waye ko am benn xam-xam nak koku bàyyi nañ la ak mom ñun dingatuñu dara am na ñoo xam ne si yàlla moo leen moo leen yenkeewal xëy na ay jinne wala ay rawxaan yoo xam ne mën na leen jox information yu bëri ci genn guddi loolu moom werante wu ma ci mais li may wax mooy bu dee li ñu xam zikartu yàlla tëdd yàlla wan la ci ay nelaw mënoo cee passé benn gën gaa bëri ñaari nit te ñaari nit sax mun naa ruube li ngay laaj ñaari bi tamit boo xëyee fajar gi dafay laaj nga taf tafsir gént yi nga gis ndax mën nañ la wan dara rek fekk dañ laa dañ dañ laa junju léegi il faut mën a xam nan la ñuy firee gént gi ba xam kii li mooy aajoom beneen bi aussi mooy li ñuy wax ilmu ramli mooy li ñuy wax ay tomb man nag boobu laa gën a wóolu ci yëpp mooy ramli mooy tomb yi nga xam ne moom nga gis noonu ñu koy def maanaam dañuy wax doomu aadama bi yàlla daf ko tënk ci ay bayit ay ashkal mooy xayaat kasbun banaat ummahaat yaa ngi dégg euh, bayt bi nga xamante ni mooy euh, marat saqam yaa ngi dégg xabr maanaam ni ñu ko mën a kii nit ki dafa am lu ñu koy séddalee ci dundam mooy lan kii mooy diw li muy wut ci wàllu wërsëgam néegu kër ndeyam néegu kër baayam lu mu wax am am yi koy dikkal ci àdduna baytu risq lu muy demee tawat yi koy dal ci àdduna baytu bi nga xam mooy am relation diggante mariage ak wàllu vie professionnelle kër gi nga xam ne mooy tàggee ay ay mbiram tukki yi nga xam ne ci lay dem li ñuy wax nguuram nu muy demee bayt bi nga xam ne mooy kërug yaakaaram kërug noonam léegi nag bu wàccee mu laaj la asail mooy kii li muy laaj bayti boobu moo koy moom moo koy posé question bi al masul mooy tontu ndax loola dana am al aqiba mooy la justice moo àtte aqibatul aqiba mooy la justice de la justice foofu nag mooy àtte mbir mi ndax kii li nga ko gisal lépp day am wala du am kon loolu bokk na ci nga xamante ni lu am solo la ci wàllu seet su ko defee nit ki bu maîtriser ñaar yooyu day tax ñaanam gën a gaaw incha allah suñ fàllu waaw. ñu gis loolu nit ñi dinañ ci sàkku ay ñaan ndax damay wax ne nit ñi moom seeni soxla bàyyiwuma dara ci téere bi kon nit ki soxla bu mu mënti am ci àdduna yooyu nga wax bokk na ci ndax jeunesse bi léegi dañoo bëgg tukki te tukki dafa laaj ay ñaan ndax wax naa ko benn mbokk fan yee ci tukki bi mu demoon am ci gàllankoor ma ne ko euh, biñ ci waxtaanee mën ak yow de ba yàlla dogal nga wut visa bi am ko newoon naa la nga dellu si waat fi balaa ngay dem nga waajal sa bopp mais far ci diggante bi gisante waatuñu muy dafa dem rek tombanteeg <coughs> feebar bi am mu tëju fa am fay gàllankoor yu bëree bari loolu nag ginnaaw bu dogal suñu borom woyee nit ku nekk daa am ay sabab yoo xam da nga ko war a sabablu mooy ci ñaan yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ne asafaru qit'atun min al azab nee na tukki daggitu mbugal la yonent bi moo ko wax tukki daggitu mbugal la kon tukki lu metti la nit ki balaa mu caa dem daf ko war a waajal ci ay ñaan ci ay sarax ak itam waxtu yu leer yi mu war a xam ndax fi mu taxaw ndax biddiwam leer na ci ngi mu war a dem wala wartu dem léegi nag foofu tam sew sew bi ci mooy nit ñi dañu foog ne biddiw Sëñ Fàllu mooy lii ngay gis ci kaw asamaan si yaa ngi dégg bu guddee benn fàq nga ne sama biddiw fàq na ah déedéet loolu biddiw de déedéet biddiw juróom-ñaar la ci shams xamar yaa ngi dégg otaarit zuhal yaa ngi dégg ba fa mu yem muy juróom-ñaari biddiw yooyu biddiw yi jant bi ci la bokk weer wi ci la bokk ak yeneen juróomi biddiw tey dañ ne benn benn biddiw bu nekk moo ëpp suuf gi fi ñu nekk ñun waaw tey jant bi ni mu toll moo ëpp suuf si waaw weer wi kazaalika léegi nag kenn ku nekk am na maanaam alaaka boo am ak sa digganteeg biddiw boobu léegi foofu nag dafa am ñoom dafa am lu ñuy wax ay ay ngunu yu ñuy dugg maanaam biddiw yi dañu am ay ngunu yoo xam ne foofu lañuy dugg ba benn bu nekk bu bu montee ba heure am jot day wàcc beneen ñëw yéeg. mooy tey ni nga gisee jant bi fenk waxtu wàcc wàcc mu jot weer wi ñëw monte wàccee beneen yeneen nag yow doo leen bàyyi xel waaw léegi nag nit ki foofu lay aju ci bidéowam bu leeree bu jógee rek dem tukki incha allah yàlla ko defal tawféex waaw loolu moom day am waaw. Mhm. Mhm. Mhm. waaw xam nga gàllankoor moom. damay damay wax ne nit ki moo koy sabablu ci bépp liggéey maanaam am na loo xam ne rek dañuy wax accident la nit mën na di liggéey ci benn liggéey am ci accident de travail dafay am waaye yàlla de mi ngi ñu defalagum sutura ba loolu ñun dalaguñu ndax gis nga Serigne ñaan maanaam du force yàlla daf ko war a nangu déedéet xam nga tey nit ki ngay waxal lépp ci ci ci waxtaan wa lay lay tàmbalee waaw. ki ñëw ne la sëñ bi dama amoon yitte bëgg nga ñaanal ma ci man dama lay njëkk wax ne la baat bi nga utiliser est xam nga ko ma ñaanal la ci moom ma li may ñaan de xëy na da ngaa jàpp ne maa la ci gën a yey mi ngi mel ne tey nga ñëwoon tey soxla président de la république nga xalaat ne premier ministre moo ko gën a jege mais mën nga dem premier ministre président gàntal ko ñaan noonu la mel dangaa ñëw joyal ma sa soxla maam ay outils outils yi mooy xam naa ay ay alquran ci gaaw xam naa tur yàlla yu ci gaaw xam naa ay sarax yu ci gaaw ma ne la kon nañ ci ànd ñaan yàlla waaye nekkul force dafa war a antu léegi kee waxal ne ko nag lii ma la ñaanal force day am kooku moom ëllëg lu ci bu amul bu taxee ne la fen nga bu ko weddi bu taxawee jéebaa ne la bu ko weddi waaw mais man li may def mooy damay ñaan yàlla duma ma dara ci yàlla damay taxaw rek ñaan ko bu antuwee xayrun bu antul moo xam ne antuwul waaw bu ma bëggee def loo ay garanti nag du ma ci dugg ndax am na benn mbokk bu ma jamono jee ne ma dañoo nekk fii ci postu caaro yi ñu bëgg ñoo yëkkati ci ay place te état bi moo soxla foofu léegi am ku ma boole yow ma dégg naa mën nga yooyu maanaam yàlla dogal na koo ko defal dana sax ci boobu léegi ki ma booleeg kat sama xarit la ma ne ko waa léegi baax na léegi amul problème comme yéen da ngeen nekk ci ay jafe-jafe mu ne dem nañ fu ne ma ne ko waa léegi ma indil vingt mille francs vingt mille francs am nga doo xeeb ma ko waaye du xaalis ci loolu mu ne waa léegi man ko dama bëggoon xam ndax su ma su ma indee 20 millions yi ban garantie lay am bu ma ne dinaa toog foofu <laughs> ma ne waa yow man bu ma nee bay laaj garantie ci loolu kay xanaa da nga jox million au moins xam ne dinaa la mais 20 mille lu ma la ciy garantie sëñ bi man damay ñaan yàlla rek su ma ñaanee yàlla mën na def nga toog fa ko mën na def ñu jëlee la fa waaye bu fekkee wóolu wóolu ma lay ñaan moom jarul nga egsi waaw yàlla dogal na musuñ mujjul sax ñëw waaw pour wala daal ñun li ñuy def ne dañ ciy jiital ne yàlla la ñuy ñaan mënuñu dara yàlla la ñuy ñaan waaw ku ñu doyloo nag ñu ànd ñaan yàlla ku ñu doyalul nga toog ñu toog waaw. Mm. ko dégg. Mm. xam nit ki nit ki moom li ko yàlla digal la ko moroom moom di jottali dong xam nga dafa kilifa gu baax nee na nit ki dëgër boppam moo waral ñu jël feu rouge ba pare jël alkaati teg ci wetam. feu bi daf lay digal rek na bu verté jallal bu xonké taxawal mais dëgër bop nit ki ñu xamné nit dafa dëgër bop bu fa alkaati taxawul ci feu bi day bourlé mais man tam non la mel yalla lim la digal moy lim ma digal man lim ma digal moy juroom ponk yi lim la téré tere bul njaaloo bul sacc bul fen bul jëw yoy ma la ma tere ñoo bok man ak yow man miri di ñaan bu ma amul comportement yoy mënuma ñaan kon yow ñaan ñaanlu tamit booy boo amul comportement yooyu sa ñaan dana yéex a jàpp ndax tey doo jëfandikoo alquran wala ngay ñaan yàlla pare dem di njaaloo ba pare bëgg la ngay def am résultat bu baax te loolu moom ñun ñëpp ci bokk yam waaye tamit yàlla dafa yaatu ndax damay wax ne gis ko xam ne yàlla jéggal ci caaxaan dong la nekk waaye loo ko ñaanal mu am waaye dañ nag exception nag mooy confirmer règle bi waaye taxul nag ñu encouragé nit ki def loolu ñun ñëpp daal dañuy ñaan yàlla ni yàlla digal ñu nekk ca lam ñu tere ñu ba ko loolu moy affaire bi su ko defé ki ngay ñaanal mom amna ci ño ñoo tamit dama koy waxal di wax amna ko xamanteni dina ñaan lu ci téméri sëriñ dugg si résultat fekk na lenn moy galankoram moy dafa indi manam ben ñagas-ñagas digganteem ay wajurum koku kenn mënu ko ñaanal lim ma la ko wax ko gis muy ak ndey ak baayam guddeeg beccëk xolal di wuté ay sëriñ wallahi day wër ba sonn du gis ko ñaanal waaw kon li jitu moy li ñu wax ne na ngeen topp seeni waajur waaw wa qadaa rabbuka an laa taabudu illaa iyaahu wa bil waalidayni ihsaanan loolu alxuraan wax nee na nga dogu ne du ma jaamu ku dul yàlla waaye danaa rafetal sama diggante ak samay waajur kon ñaan bi jiitu mooy fexeel am sa ñaanu ndey ak sa ñaanu baay so paré nak nga dogo djublu ci ka nga xamné japp nga né tane na la ci sa digënté ak sa borom nga koy ñaan lo yalla indi waye li feeg ya nga ñagasal di di di len toroxal di tangal seen xol ba nopi nga ëlbatiku di wut sëriñ dellu weex la 1 million par jour do gaaw am résultat wa loolu ma la ko wax waye nit ñi tamit ci walu ñaan mhm. est-ce que nit ki da fay xaar ba am soxla mhm. yitte wala dara jox ko mhm. door a ñëw wala nit ki war ngay ñëw tamit di ñaanlu sa sa saa yoo féexee wala jàpp wala loolu gis nga ñu bari sax loolu seen nyan seigne fallu ñaan nit ki warul xaar ba am soxla soko juk manam ñaan damay wax ne prévention la mi ngi melni febar so baye ba febar deug soko juk sa faju dana yeex waye ki prévenir chaque année mu dem def bilan buñ ne ko gis nañ ben anomalie bu ndaw mu juk ca koku xeyna bala muy teud lacc dana jafe ñaan tamit non la parce que ñaan dama ne lañ ci wër xey jaam warul xey su bobu ngon ñaanul yalla mu warut a mën a nekk foofu rek dafa war a jàkkaarloo yàlla ñaan ko mooy comme ni ma la waxee ginnaaw julli mu ñaan ginnaaw naafila mu ñaan ginnaaw saraxe mu ñaan lu muy def rek mu ñaan ci yàlla yonent bi sallallahu alayhi daraan ñaan bay ñaan xorom lu mu xoromee cinam kon kooku moo daraan mus dem ci ñàq ñàkk da ci daan mus la bu baax a baax a baax ñàkk ñàkk baaxul mooy dugal nit ci lu ne kon kii ñaan na di ñaanlu dafa amoon euh, euh, kilifa gu baax Euh, Cheikh Ibrahima Fall dégg naa euh, ñu ne ko parfum de euh, neex na lool waaye gaaw a sàlle ko yàq mu ne xanaa boo ko noppee laal waaw. waaw boo ko noppee laal daal moom dootoo ko xeeñ waaye li fekk yaa ngi bu bu wanee piis ñaar miin nga ne piis doo tàggoog moom wax nañ sax ne ne ku jonjoog borom laaj ko lañ bu yàggee nga xeeñ. waaw kon loolu la gis nga nit ki sax même di ko fréquenté sax bu yàggee gis nga di fréquenté borom tur yàlla sax am na lu muy def ci yow waxuma la mu jox la dara de mais nga xam ne kii tur yàlla la jëfandikoo nga nga ñëw di jonjoog moom bu yàggee rek mu branché la kon nit ki tout le temps dafa war di ñaan tout le temps dafa war di saraxe tout le temps dafa war di ñaanlu kon yàlla nañu lu euh, mhm. da nga da nga mhm. mhm. waaw li tax ma dugg ci bokk na ci dama dégg ci génn kilifa mu ne ki war a wax te waxut dafa am cër bu ko yàlla di àtte ëllëg ki warta wax di wax moom tam kazalika ki war a noppi te noppiwut tamit moom tam noonu te léegi ñu gis ne mat na ay at communication bëri na trop ci YouTube bi ci Facebook bi ci rajo yi ci télévision Instagram fu ne daal ba ci rond yi sax communication baa nga fa léegi yow bu fekkee yàlla dogal na nga jàpp ne yow gëstu nga tuuti ci ak xam-xam ba am ko nga bàyyi waajoo xam ne xamul dara muy wax rek yow nga toog fi nga toog fi ñu ko wanee nga ne kii xamul dara te yow jéemoo wax ne xam nga dara yàggee yow dañ naan yow yaa xamul dara te loolu dafa bari léegi ba pare mooy li ma la waxoon aaya bi ma la waxoon sàng ne la li yàlla ne wala talbisul xaq bil baatili wa taktumul xaq antum taalamuun loolu damaa bañoon mu dal ma mooy bu ngeen xam ak dëgg ba noppi di ko nëbb waaye bu leen jël dëgg di ko muuree ay ay fen te bu fekkee jàpp naa ne lii ñuy wax muy faj mi wala muy ñaan gi am naa ci xam-xam tuuti war na maa génn wax ni ñëpp nag ñu déglu ma wax ji tam tekkiwul ne li nga wax rek xam nga dafa am loo xam ne théorie la am xam pratique la wax ji mooy théorie mooy li may wax nii théorie la pratique bi mooy ki mu war a jëflanteel foofu tam ñu def fi attention da gis ñoo xam ne dañuy sabote moo xam ci ci Facebook moo xam ci YouTube da ngay gis yoo xam ne day ñëw rek di commentaire te mus xam yaay kan mus xam foo dëkk musu la jëflante ak yow. waaw xam nga loolu moom ak tooñ la mais nag damay wax ne foofu tam ku bañ ñu tooñ la bu fa dem rek mbedd la mbedd mi moom boo ci xasee ba dugg maanaam ku ne ngay dégal fexeel rek ba yow buñ la séddee ci gaalu xaj bu ñu la fekk ngay lekk ci gaalu xaj ga loolu rek moo ci am solo lii moom a dugalaat ci nañ def communication te ñu gis ne tamit yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ba ko yàlla yónnee daf koo digal ngir mu da ko wooteloo léeg-léeg tam nga dégg kuy wax ay erreur diw mii kañ la fi doon lii diw kañ la fi xam lii loolu erreur la yàlla heure bu ko neex la koy lay joxe xam-xamam heure bu ko neex lay maye alalam mm-hmm. nee naa Sénégal nangu nañ ku xëy am alal mais nanguñu ku xëy am xam-xam benn waaye lay romb ci koñ bi munta faste xànc ak moroomam mm-hmm. ca déwén sa mu dawal 4-4 romb la mm-hmm. mais nga nangul ko ko donte sax am nañu ñaan naan daf nii waaw fu mu ko amee nangam nangam waaye danañ ko nangu au mais mu moo doon sëriñ <laughs> yàlla xamul loolu loolu yàlla xamu ko waaw yàlla lu ko neex lay def ak waxtu ko soobee mu def ko. Mhm. loolu mooy la Sëñ Fallu mooy yëf yi. fi mu ne nii waaw incha allah rabi daal communication bi fas yéene naa di ci def nag maanaam sama kéemtalaay kàttan waaye di wax li ma mën. waaw maanaam nekkul damay wax rek pour wax non parler pour parler déedéet damay parle pour éclaircir waaw wax ak nit ñi ngir am lu ma leeral ca la ma xam dingatuma tam kenn xam-xamam waaye man li ma yor loola ma doy ci loolu laay wax. waaw ñu gis ne tamit euh, émission buy jeex da nga yóbbul loolu. dama gis ne xam-xam yi ñu dafa bari lool te mënuñu ko jëriñoo suñu giir dund. te jël ci di joxe wàññiwul dara dañ ne alal ngay joxe muy wàññeeku waaye xam-xam da koy joxe muy yokk tey xam-xam bi ma yor mën naa ko jox nit mu wax ma ci leneen loo xam ne xaw ma ko woon man alal dong ngay joxe nag ba noppi lamb say poos xam ne wàññeeku na. ba na tey fas yéene naa jox leen fi secret bu am doole lool muy tur yàlla bi ñuy wax yàlla tiif yàlla tiif boo ko xoolee dafa nekk ci adat 129 mooy li ñuy wax valeur numérique mooy 129 129 yooyu boo ko multiplier par 129 daf lay jox 16641 moom la ñuy wax am xaw xawiyun latif moom la ñu ko dànk dàkkantalee 16641 yooyu soo ko jëlee nga multiplier ko multiplier ko par 7 da nga am 116 487 ñu koy wax zafta weex sëriñ si xam nañ li may wax muy lim bu am doole ci yàlla tiif muy 116 487 nga xam ne ni koy liggéey dañ koy liggéey ci juróom-ñaari fan bis bu nekk ñu liggéey 16 641 mais tey dama leen ci indi li ñuy wax tey tey mooy raccourci waaw nga xam ne doo fi toog di liggéey yàlla tiif 116 487 dama lay jàngal yoon bu gaaw boo ko liggéeyee nga am 116 487 dafa am tur yàlla boo xamante ni ñu ngi ko tëggee la ahlal masin ak nasabin qaxta riichin tur tur yàlla boobu ñu bëri xam nañ ko latif la mooy yaa latif bu ñu multiplié par 15 muy 1935 1935 yooyu moom laa lay jàngal yoon wu gaaw gis nga tey soo toogee nga jël sa kurus nga def astaghfirullah téeméer salaato salaatu na nabi nga def ko téeméer nga liggéey yaa latif 387 nga taxaw yaa latif yaa latif ba am si nga taxaw nga liggéey tur bi ma la ahla la masin ak nasabin qaxta riichin 60 fois léegi gis nga boo jëlee 1935 nga multiplier ko par 60 yooyu ma la waxoon nga dolli ci 387 yi am nga 116487 muy zaftawix diggante bu gàtt nga liggéey zaftawix jug dem sa yoon te incha allah yàlla dala koy nangul jërëjëf kooku la ñuy àndaloon ci waxtaan bi muy Serigne Malick Gueye dégg ngeen ko ci waxtaan bi ñu doon waxtaanee ci wàllum ñaan mu indi ci ay kàddu yu am am solo. Mm. ku ko gis euh, xam ne wax dëgg yàlla li fi wax lépp lépp boo ko toppee njariñ kese nga ciy gis. Mm. te ñi dañ koy sàkku di ñëw fii di ñaanlu. Mm. te yàlla di def lépp muy ànd kon dañ koy jël santaat bu baax. di gërëmaat euh, sëriñ Malick euh, Gueye bi nga xamante ni moom mooy waa Sajaratu Touba. Mm-hmm. ñu laaj la ci Sajaratu Touba tuuti rek balaa ñuy tàggatoo fii liggéey bi nan la demee ak lan moo taxawal Sajaratu Touba waa sagaratu Touba baat bi barkeelu la rek ndax Touba dañ ne garab la gu nekk ca aljana ñu jël tur bi kon ne sagaratu Touba ndax ci garab la yëngu ñun dañoo bëgg barkeb sagaratu Touba wàll ci suñu barkeb reen yi ak suñu xob yi euh, ba tey li ko taxawal bokk na ci dimbale nit ñi Sëriñ Fàllu man du wax lu ma gëmul wallahi lazim du ma wax lu ma gëmul fii ci ndimbal la ñuy dox koñ bi ma nekk boo demee suma kër am na daara gàtt gàtt juróom-ñaar fukki xale jamono ji ñu ngi fay jàng te kenn du ci fay dara du amul kenn ku ci fay dërëm loolu maa ko jaayanteeg yàlla du te ñaan yàlla mu gën ko yokk noonu tam laa def ci bërëb bi feebar bu fi waaye mën di indi ñu koy faj feebar nag laa wax waxuma ñaan feebar bu fi waaye indi ñu koy faj duñ ci passé dix mille francs ba mu mën doon dix mille francs yooyu ci lañ lay fajee ba nga wér si biir 10 000 yooyu itam da ngay am 3 rendez-vous yu yu yu 15 jours muy 45 jours yooyu itam damay wax ne 45 jours ku ma ci jëflanteel te mënu ma laa faj dama lay bàyyi nga dem feneen moo waral tamit 10 000 francs yooyu ndax nit ki war a koo téye ñetti weer ñeenti weer yaa ngi dégg te mënoo koo faj boo mënul rek bàyyil sa morom dem jéem moo tax ci 10 000 francs yooyu dinañ la fi téye 45 jours di la faj. boo ci wéree alhamdulilah boo wérul tamit nga dem xooli ji keneen macha allah xam naa ne loolu mooy tàmbali sax suñu ñaareelu waxtaan bi mhm. waaye du jox nit ñi rek eh, dig daje waaye surtout ñu ñëw seet si eh, Serigne Malick Gueye ci eh, Kër Mbaye Fall ma pap tubaab ko mhm. dëgg yàlla ku ko soxla boo ñëwee ba Kër Mbaye Fall boo ko laajtee dinañ la ko wan wala nga woo ko ci numéro 77 539 19 04 wala 77 507 38 63. ña am ko seet si wóorul ñoo leen ñu seet si ko sàkku ñaan waaye ñu fajal la. kon mhm. ngeen toog ñu ci suñu yeneen i euh, émission ñu waxtaanee wàllum faj waaye tamit dugg ci Sadiaratu Touba. Mhm. ndax laal nañ ko ci suñu émission bi. Mhm. waaye bii di ñëw dinañ ko gën leeral. jërë ngeen jëf.